أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ko nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ku nekk xam na ni weer wi ñu dëgmal muy weeru gàmmu di rabiul awal weer bu tedd la ndax li ci xew muy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax suñu mag ñi daan ko màggal ku nekk ak façon bi nga xamante ni moom nga koy màggale muy ñu koy tudde gàmmu loolu tax ñu bëggoon ci terute weer wi ñu di ci fàttali jaar-jaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sukkandiku ci téere bi ñuy wax burdatul madix ndax mag ñi loolu moo nekkoon seen objectif mooy bu weeru gàmmu ñëwee ñu fàttalante jaar-jaaru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax seen cofeel yokk ci moom téere bii di burdatul madix ki ko taalif mooy imaamul busayri muhammad ibnu saxiid ibnu amma ibnu hamad ibnu abdullah assanhaaji al busayri al misri mu ngi faatu ci atum 696 ca iskandariya fële ca égypte wax na ni li tax mu taalif téere bii di bord dafa feebaroon feebar bu metti maanaam dafa paralysé woon bi mu paralysé tëdd benn guddi ni xaaral ma def benn tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci sama feebar bi yàlla yëkkati ma bi mu ko defee mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay nelaw yonent bi daal di koy raay ci loxoom mu wér péng bi mu génnee këram di dox benn mag dogale ko ni ko jàngal ma xasida bi nga def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bii mu daldi ko koy jox jàngal ko mi ngi tàmbale amin tazakurin jiraanin bi di zalami ba xasida ba jeex foofu la xasida bi jóge siiw ku ci jot jot ci lu tax kon nag ñu tuddee ko bord moo tax dañuy wax ni waruñu ko woon tuddee bord bord mais dañ ko woon tuddee borku bi firi wér bordu mooy firi manto dañuy wax ni li tax mu tudde ko bordu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aussi daf ko jox benn mantoom ci biir gént gi daf ko ko sàng ala kulli xaal am nañu ni loolu moom moo tax ñu tudde ko bordu ñu ni waruñu ko woon a tudde bordu mais bordu lañ ko woon a tudde wér xasida bële di baanat suaadu boobu lañu waroon a tudde bordu ndax kaab ibn zuhayr ibn abi sulma ba mu ŋàññee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak histoire ba ni mu guddee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuub way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baanat suaadu fa qalbil yawma matbuun ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe benn mantoom ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe benn manto looloo tax ñu ni xasida boobu lañu waroon tuddee burda ndax boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxal boppam ci yaqazatan la manaaman qasida bi nag mu ngi tàmbalee amin tazakkuri jiraanin bi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am na yu ñu ci idaafa alhamdulillahi munshi alxalqi min adamin summa alsalaatu ala almuxtaari fi lqidami ak mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi waaye qasida bi yooyu yépp ginnaaw ba rek la ci lañ ko ci dabaatal ak buntu yiñ ko def yépp moom boroom qasida bi muy imaamul busayri defu ko ci woon buntu bu ñuy waxtaane tey mooy buntu bu njëkk bi bi nga xam ni da ko def ci xazal ak chakwal xaraam fil xazali wa chakwal xaraami xazal arab yi bu ñuy woy dañ koy faral di def rawatina bu ñuy tagg seen soxna wala tagg jigéen wala woy bu mu mën a doon soo xoolee suñu mag ñi ñëpp ñu bari seeni woy dafay am xazal wa shakwal xaraami ak tawat lakku cofeel xaraam mooy cofeel goo xamante ne dafay sonal boroom mooy alxaraamu bokkut ak shawq imam Busayri nee na amin tadakkuri jiraanin bi di salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami firi bi nag duñu ko firi comme firi daaraja rekk kese kese ndax ñoom li ñuy soxlawoo dañ ñuy concentré wu ci luga qasida bi maanaam langue bi ndax dafa am langue arabe bu riche am tamit siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam busay nee na amin tazakkuri jiraanin bi di salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bi dami bu la neexee nga ni amazajta dam'an amazajta ndax dangay jaxase damaan ay rangoñ jaraa yoo xam ni mu ngi daw min muqlatin tukkee ci nagu bët al muqla mooy peru bët bu ñuul bi ak bu weex bi loolu ñu boole moom mooy muqla bidamin ànd ak deret ngir lan min tazakuri jiraanin ngir fàttaliku ay dëkkandoo bi zi salamin yu dëkke woon zi salam la neexee nga firee noonu mën nga tamit ni amin tazakuri ndax fàttaliku amin tazakuri jiiraani ndax fàttaliku ay dëkkandoo bi zi salamin yu dëkke woon zi salam mazaj te ci ngay jaxasee damaan ay rangooñ jaraa yoo xam ne mu ngi daw min muqlatin tukkee ci nagu bët bi damin ànd ak deret mu ni ko am habbati riixu min tilqaai kaadimatin aw madal barqu fi dalmaai min idami mu ni am habbat wala dafa upp ar riixu ngelaw li min tilqaai kaadimatin tukkee ca booru kaadima barab la tamit aw mada wala dafa xuuy al barqu melax fi dalmaai ci lëndëm gi min idamin tukkee ci barab buñ naan idam yi yëpp muy tudd daf koy wax ndax ay barab la yoo xam ni dafa jege fa nga xam ni fa la soppeem bi nekk muy sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko fama ana lan li aynayka in qulta takfufa hammata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi mu ni fama ana lan de laara li aynayka moo ñeel sa ñaari bët yi in qulta ba soo leen waxee te moom boppam lay waxal kat uk fufa fegu leen yam leen bàyyi leen seen jooy yi hamata ñu daldi dotti ay rongoñ mu ni ko wooma ana lan del laa la li qalbika moo ñeel sa xol bi in qulta soo ko waxee istafiq xiqil bal sa ngëlëm gi bal sa dof doflu gi yéhimi mu daldi gëlëm mu gën a gëlëm mu ni ayaxsabu ayaxsabu sabbu an alxubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu wa mudtarimi mu ni ayaxsabu wala a ndax yaxsabu day njort asabbu aji sopp ji an alxubba naka cofeel munkatimun aji nëbbu la maa bay na mun sajimin ci diggante rankoñ yuy so yuy yol yuy sotteeku min hu tukkee ci moom wa mudu tarimin ak xol buy tàkk ak cofeel ndax foofu cofeel mënees na ko faa nëbbati déedéet mu ni lawlal hawa bu dul woon ak cofeel lam turiq doo tuur dam an rankoñ ala tolalin ci ab gent gent mooy fu ñu dëkkoon ba nit ña tuxu wala ariqta te doo fog mooy fanaanee xoole bañ a nelaw li zikril baani ngir fàttaliku garabu baan wala alami ak ay montagne mooy barab yim doon tudd rekk wala aaratka law nay abratin wadanan zikra alqiyaami wa zikra saakini alqiyaami mu ni wala aaratka te du la abal zikral xiyaami fàttaliku ay xayma wa zikra saakinil xiyami ak fàttaliku ña dëkke woon xayma ya saakinil xiyami dañ ko saakiniina la woon jam muzakkar saalim la mu idaafa ñu xasaf yaa gi saakiniina waaye saakinil xiyami mu ni kon du la ab du abal mukk law nay abratin ñaari ñaari ñaari bëti rangooñ maanaam ñaari ñaari yooni rangooñ wadanoon ak songoom songoom mooy feebar boo xamante ni daf lay jeexal naan sa yaram ba mu set mu ni fa kayfa tunkiru xubban baadama shahidat bihi alayka udulu dam'i wa saqami fa kayfa tunkiru naka ngay weddee xubban cofeel boo xamante ni wala fa kayfa tunfiru naka ngay weddee xubban cofeel baadama shahidat ginnaaw bam ko seedee bihi ci moom alayka ci yow udulu dam'i maanduk rangoñ wa saqami ak ràgg rangoñ ni mu maandoo soo nit ki su merul du jooy nit ki su kontaanul du jooy kon nag bu dee génn benn def nit ki dafa kontaan wala dafa mer nga tax mu ni udulu dam'i wa saqami maanduku rankoñ ak ragg mu ni wa asbata al wajdu xattay abratin wadanan misla al bahaari ala xaddayka wal anami mu ni wa asbata saxal na al wajdu njàqare gi xattay abratin ñaari rëddi rankooñ waddanan ak songoom songoom wax naa la ni mooy feebar boo xamante ni dafay ngacc yaramu nit ki te doonte mën naa bañ a yëg benn mettit mu ni mislal bahaari ba mel ni garabu bahaar mooy jaatoor waaye garab yi àla en général ñun xamuñu ko xamuñu parce que mën naa amul suñu suñu suuf si ala xaddayka ci sa ñaari lex yi wala anam yi ak garabu anam yooyu yépp ay façon garab la mu ni naam waaw léegi mi ngi accepté liñ ko doon wax lépp mu ne na am saraa tayfu man ahwa fa arraqani fa arraqani walxubbu yactaridu lladaati bil alami mu ne na am waaw saraa rañaan na tayfu man ceeñeeru ka nga xam ni ahwa sopp na fa arraqani mu fogloo ma mu ni tawar wal xubb cofeel yaxtaridu day gaar alladaati bànneex yi bil alami ci metit yàlla imi mu ni yow mii di ma yedd fil hawa ci cofeel al uzriyi macdiratan minni ilayka walaw ansafta lam talumi mu ni yàlla imi yow mi di ma yedd fil hawal cuduri yi ci cofeel gi mel ni cofeelu kojug cuduri dafa am benn giir ci arab yi dañ leen daan askanale ak ak mbëggeel ak cofeel ba bu ñu melal ku sopp sopp gu xóot dañ naan dafa mel ni hawal cuduri yaa laaimi fil hawal cuduri yi macdiratan mu ni ko dogal ma ngant dogal ngant min nii ci man ilayka jëm ci yow mu ni ko walaw an safta boo maandu woon lamtalu mi sax dooma yedd macdiratan yaani adir nii macdiratan wala boo nga ni uqaddimu macdiratan kon mën nga maas macdiratan mën nga maas tamit macdiratun boo ko defee macdiratun mu nekk xabaru mubtadain maxduuf soo ko defee macdiratan mu nekk ficla boo xamante ni dañ ko xadaf warfa awin sib in qataata mudmara mubtadaan aw naasiban lan yadhara borom ibnu malik mu ni kon adat ka xaali laa sirri bi mustatirin an il wushaati wala daa'i bi munxasimi mu ni ko ah adat ka jéggi na la nag xaali xaali sama sama sama melokaan léegi moom mi ngi accepté mbir yi di wax ni nag moom li ko dal lii la moo tax mu ni ko adat ka xaali mu ni laa sirri déet sama mbóot sama secret li ma dal bi mustatirin di di di aji nëbb anil wushaati wolif rambaaj yi way rambaaj yi te wala daa i déet sama jàngoro bi mun xasimin di aji dog maxatani nusxa lakin lastu asmaahu in almuhiba an ilcudaali fi samami mu ni ko ah maxatani sellalal nga ma an nusxa laaye biir laaye biir nga ma laaye biir bu sell lakin lastu asmaahu waaye li fi nekk nag man dégguma ko ndax innal muhibba aji sopp ji fii samamin aji nekk la ci tëx anil uddaali walif way yedd ya nit ki sopp soo koy yedd di ko wax ay gaaf nee na du du la du la du la faale ndax lan ndax cofeel gi cofeel gi moo koy jañ ba dootul gis dootul gis mu ni inni tahamtu nasiha shaybi fi azalin wa shaybu abadu fi nusxin ani tuhami mu ni ko yow yaa ngi may yedd waaye man sax nag maa ngi tuumaal koo xamante ni moom wóor na ma ni moo la gën a maandu ak ak laaye biir moo tax mu ni inni naka man ittahamtu tuumaal na nasiha shaybi laaye biiru bejjaaw ci boppam fi azalin ci yedd ci ci yeddangeem tawa shaybu béjjaaw abaadu moo gën a sori fii nusxin ci laay bi anit tuhabi walif di ko tuumaal ku dem ba mbejjaaw wër la ndax mbejjaaw mooy tóortóoru dee ku mu weex tàll ci sa bopp war ngaa xam ne meññeet baa ngi ñëw moo tax mu ni te sax nag moom moom mbejjaaw moomu tuumaal naa ko kon waxantuma laa nag ak yow mi loolu moo nekkoon chapitre bu njëkk bi lépp daf ko def rek ci gazal ak yooyu kon duggagul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam chapitre bii ñëw lay wax nag ci ñu way moytandiku topp bànneexu bakkan incha allah bu subaak jàmm ñu jël beneen chapitre bi nga xamante ni moo topp ci premier chapitre bi noonu lañ koy doxalee ba bunt yëpp jeex wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu